tey jële mu ngay wëy waaye nag loolu tax yéenekaay bi daal di xam ne ni ki tey jële njiit réewu Sénégal Macky Sall wala sax euh, pom gouvernement bi ci boppam euh, ñoom ñoo daal di fexe euh, kon daal di suuxal li nga xam ne moom moo jëm ci projet bu Pastef loolu la direct news daal di xamal ni ki tey jële Vox Populi ci wet ba daal di ñu tegal xëtu njëkk yéenekaayam ki nga xam ne moom mooy Dial Diop bokk na ci parti bi lay di Pastef moom la mu xam ne mooy mu nekk Ousmane Sonko wala mu ñàkk a moom c'est vrai que ñoom bëgg nañu mu nekk Ousmane Sonko seen candidat atum 2024 waaye Pastef moom dinañu am candidat loolu la ñu xamal ni ki tey ji la euh, xamal nañu ne moom fi mu ne nii euh, même euh, bu fekkente ne Ousmane Sonko déggatuñu ko waaye moom leader bu Pastef ba tey mu ngi ci xolu askan wi ndaxte ci jëm ci wàllum espace public bi leader bu Pastef Ousmane Sonko turam du jóge ci maanaam ñu askan wi wala sax ndaw yi Birahim Touré ba tey ci lu jëm ci wàllu politique Ousmane Sonko ndax dina bokk am du bokk ndax moom mooy doon candidat bu Pastef am déet ndax moom mooy boot projet bi en 2024 am déet euh, le débat continue à se faire à, en tout cas à se poser. oui euh, débat normal je dirais naturel mais un débat boo xamee ni tamit euh, mës nañu dégg débat yi ci parti yëpp wala coalition yëpp. Hmm. on se souvient quand ci biir Macky 2012 wala Macky euh, en tout cas APR Benno Bokk Yaakaar on a toujours dit il a pas de plan B C Z a un seul plan. mooy Macky Sall teewul moom mu soppi mbir mi ne ni dematuma élection donc fi ñu toll nii coow li mooy ban plan lañuy teg kan mooy doon beneen plan bi euh, taxaw nañ fi 2019 ñu ne Karim bu bokkul élection du am parce que benn plan la ñu amoon biir PDS muy Karim Wade bokkuñu PDS bokkul Khalifa Babacar Sall bokkul ñeneen ak ñeneen bokkuñu parce que benn plan la ñu amoon ñoom ci biir Pastef kiy wax di jàll Diop di ku miin politique yàgg ci politique xam politique ba pare xam réewum Sénégal nu muy doxe bu yëkkatee kàddu ne ni euh, bu bokkeek bu bokkul yëpp Pastef dina am candidat am na fu mu ko teg mooy waaj waajal nañu benn plan B gis na parti yëpp <coughs> coalition yëpp dañuy waajal plan B mais duñ ko wax parce que Euh, yàlla rek xam suba nan lay demee. da ngay ñëw ne ni man sama yéene mooy diw mooy dem suñu yéene ñun mooy diw la ñu jël porter sa candidature mais du tee diw moom ngay wax sax ma ngay sóoraale ni si jamais dara dal na ko ci diggante bi est-ce que mën nañu am keneen koo xamee ni mën na porter le projet alors quand il de PASTEF ou ex-parti PASTEF c'est selon position bu ñu taxawee. Euh, dafa am loo xamee ni projet la bu ñu bind projet la bu ñuy wax projet la bu ñuy bu ñuy jëfe te Ousmane bokk ci ñi jiital projet bi nekk ci bopp projet bi si jamais bokkul parce que euh, ci lu jëm ci wàllu yoon ñenn dinañ la wax ni mënu bokk ñenn ñi nela ah mais il est encore présumé innocent parce que amagul condamnation définitive boo xam ne écarté ci ay élections ñu ne kon lu tax waruloo mën a bokk ñenn ñi ne ni bu ñëwee dañuy toog di xaar ñu mëtal lépp ci wàllu justice mën nañoo yéex te mën nañoo tardel suñu projet ak suñu taxawaay ci élection présidentielle 2024 ñu nekkoon nañu xool benn plan muy plan B li Diallo Diop di wax mooy ni am nañu dinañu am candidat léegi candidat bi nag coow li mooy xëccoo ni mu amee ci biir bennoo ñu naan diw moom la Macky bëgg jël def ko euh, koy candidat ñeneen ñi ne ndax dinañ ànd ak moom wala du ànd ak moom ci biir Pastef waaye ci biir yi Askan Wi am na ñoo xam ne dañoo taxaw ne ni seen biir xel bu dee bokkul moom Ousmane Sonko yàlla na ma yekkale ay ay ay ay militant ak ay sympathisant jël ndigal ne ni par exemple man du ma mën a bokk parce que teg nañ ma ci yenn yoo xamee ne mënumaa dem ci élection waaye man en tant que jiital parti Pastef di porteuru projet bi jël naa samay nit ne leen ndigal bi ma leen di jox mooy votal leen Alamine Senghor bu ñu demee si élection présidentielle. Hmm. ci biir Yewwi Askan Wi am na ñoo xam ne loolu la ñuy xaar. Hmm. est-ce que ce sera un Déthié Fall est-ce que ce sera un Cheikh Oumar Youm est-ce que ce sera un tel un tel est-ce que ce sera Aïda Mbodj est yooyu yëpp ce sont des interrogations xam ne nit ñu ngi koy def parce que le plan A du euh, Ousmane Sonko. rien n'est sûr que dina bokk ci élection présidentielle 2024 et même les chances pour mu bokk sont selon certains très infimes minimes voire même inexistants selon certains d'autres croient encore que parce que tamit bon projet boo ko jàppee da nga naan ni non quel que soit alpha ba géej gi fer mooy doon suñu candidat mm. mais sauf que dans la réalité euh, gis nañu li fi xewoon dans le passé c'est si on consulte juste le passé bu ñu la nee diw du bokk diw du bokk euh, état am na doole boo xamee ni euh, mën na ko jëlee ci code électoral wala code de procédure pénal pour ne nii lii la code électoral wax wala lii la code de procédure pénal wax diw mënul bokk hmm. donc pour parer au plus pressé il faut nécessairement que ñu wut benn plan B comme tous les partis le font parti yëpp dañuy wut plan B hmm. mais duñ ko wax parce que boo ko waxee da ngay da ngay xaw a wàññi doolewu plan A bi wala ngay indi yenn yenn dualité mm-hmm. mais parti yëpp am na plan bi hmm. tey tey ñuy wax euh, ñi di wax ne ex euh, parti Pastef mais euh, peut-être Pastef mën nañu dem ci présidentielle naam ñu bari jàpp na ni mënuñu dem bu ñu tëralee benn mouvement bu yees ñi jàpp loolu bokk nañ ku ci mel ni Bougane Gueye Dany wax na ko récemment que ni Pastef mën na créer mouvement pour dem ci présidentielle en fait il faut que ñu fàttali benn mbir. Hmm. parti Pastef en hmm. tant que Pastef. mësula hmm. dem ci élection. dafay dem ci bannière coalition wala leneen mais mhm. parti Pastef kese mhm. musula dem mhm. Sonko président moo amoon deux mille yeneen euh, yeneen i ci ay coalition ci yeneen i élection ba ci yeewi askan wi élection yi ñu weesu mais parti bi ci boppam Pastef demagul ci ay élection yoo xam ne dañ naan parti Pastef candidat nangam euh, wala ay candidat nangam c'est ay coalition la wala ay mouvement bi mel donc ñoom Euh, c'est pas un problème pour ñu bokkaat ci ay parce que c'est pas parce que on a dissous le parti qu'il n'y a pas de membres non. ou de sympathisants ou de militants ñoo xamee ni ñoom mais euh, parce que bu ñu demee élection mm-hmm. parti bi d'accord am na solo mais li ëpp solo mais mm-hmm. carte carte d'électeur mm-hmm. donc euh, binduñu ci carte bi ni ku mën a voter même Macky Sall buy dem di voter kenn bindul ci carte électeur am appaire wala Benno mm. il y va en tant que citoyen une fois que tu es devant euh, le bureau de vote mm-hmm. ou dans un centre de vote mm-hmm. ca bésu élection sa appartenance politique da nga koy teg fële mm-hmm. doo ko wane mais fa nga koy wane mooy ci biir urne yi donc tey le parti Pastef ou ex-parti Pastef a quand même des militants et des sympathisants yoo xam nag coow li mooy comme li ma wax sànq euh, bu dee Sonko bokkul kan lay jox ay ay militants. Euh, kan lay kan la koy jox d'autant plus que ñu ci bari ñu bokk ci Pastef jamono ji gis nañ ni ñu ngi ci kaso bi. oui mm-hmm. mais mais a pas que euh, c'est-à-dire que. Mm-hmm. Euh, nekk ci kaso bi am na ñoo xam ne nekkuñu ci kaso bi. Mm-hmm. je te un exemple Birame Souleye Diop. Birame Souleye. et d'autres ah. yoo xam ne ñu ngi ci biir parti Pastef. et qui sont pas en prison. qui pourrait être. entre guillemets le plan B su ma ne pourrait être c'est parce que ma jàpp naa ni ci logique politique parti bi wala euh, ex parti bi dinañ am candidat quel que alpha comme le dit Diallo Diop mais seen candidat mën na bokk mën na bañ a doon ku bokk ci biir parti bi mais bokk ci coalition bi ñu ne coalition bi kii moo ci gën a nuru Ousmane Sonko wala moom moo ci gën a euh, porter combat Ousmane Sonko donc il peut Sonko bis mën nañu jël suñuy nit yekkale ko kooku ne ko boo demee tu vas au nom de Ousmane Sonko et du parti Pastef ñun dinañ la jàppale en tant que Ousmane Sonko ak parti Pastef ak militant ak sympathisant mais boo xasee ba falu mën nañ sax signé benn charte buñ la falee yow lii mooy doon condition yi fexeel ba lijjanti ba ñu génnee bu dee mu ngi ci kaso ba léegi suñu ñooñ ci kaso bi euh, fexe ba lijjanti nangam na am mu am loo xamee ni ay négociation yu am ci biir loolu mën naa nekk dama ne mën na nekk. Mhm. mais leneen li mën a nekk mooy gis nañu fi PDS ñu ne Karim Wade mooy suñu candidat ñu écarté Karim Wade ndax mbirum yoon PDS demul élection ci 2019. Mhm. Mhm. joxewul ndigal aussi que ne nañ voté pour diw. joxewul ndigal aussi que nañ voté pour diw en 2019. waaw mais sauf que maintenant beneen beneen coow li mooy la valeur du ndigal entre guillemets politique. pas ndigal bu jógee ci sëriñ si. mais ndigal yu joge ci. Euh, euh, leader politique yi. Mhm. c'est pas parce que Macky Sall dit par exemple a tous les gens de benn ou APR Amadou bay mooy sama candidat jàppale leen ko. Mhm. que Aliou Ngouille va mhm. aider wala Mame Boye Diao keneen. c'est pas parce que diw dafa diw moom mooy sama candidat que loolu mën a am. mais lii muy indi yëpp mooy il faut que parti politique yi de manière général bañ a am lu ñuy woowee ay constant ñu ne benn nit. moom moo nekk mooy buur mooy buum yi mooy lépp ba kenn kooku bu nekkee si jafe-jafe ñeneen ñu réer hmm. on l'a vu benn période ci parti démocratique sénégalais ñu ne euh, Karim Wade ou personne gis nañ fu mu mujjee 2019 hmm. bokkul PDS bokkul hmm. ñu ne la taxaw aujourd'hui peut-être le problème est moins compliqué parce que au-delà de Khalifa Sall mais Barthélemy valable pour nekk candidat. bu xalifa tey bu nekkoon ci jafe-jafe boo xamee ni mënul dem. mais mën nañ puus ne Barthélemy demal. parce que am na fu ñu euh, porté na projet wu taxaw euh, tey Pastef également dañ jël ne ni diw mooy suñu candidat mooy suñu plan A ba plan Z mais teewul ci suuf lijjante nañu ñeneen ñoo xamee ni xam nañ leen euh, xam nañ Birame Souleye jot xam nañu. Euh, euh, le numéro 2 Bassirou Diomaye Faye un un homme charismatique koo xamee ni nit ñi xam nañu ci moom ni euh, moo Sonko dañ naan dañoo nuroo nuroo ci façon nuroo ci lépp mm. ñu ne kook mais pourquoi pas il peut être un plan B donte mm. mu ngi ci kaso El Hadj Malick Ndiaye mi yore wàllu communication c'est-à-dire on mm. connaît des gens l'erreur que beaucoup de partis politiques malheureusement font mooy benn nit mooy nekk ci kaw wala mouvement politique nga gis benn nit diw diw diw il on le voit sur tous les plateaux de télé. Mhm. on le voit sur tous les meetings. Mhm. moom doo la ñuy dégg moom doo la ñuy gis doo xam sax ndax am na numéro 2 wala. Mhm. am na parti fii wala mouvement yoo xam ne yu siiw benn nit lañ ciy xam. benn nit lañ ciy xam euh, yenn saa yi kooku jéem a lijjanti pour dugal benn ci ay éléments ci benn plateau. mais du siiw parce que moom la ñuy xam moom la ñuy gis chaque jour moom la dégg partout. moom mooy bind moom mooy wax moom mooy kii et ça c'est dangereux aujourd'hui c'est peut-être moins le cas pour la paire PDS c'est toujours le cas parti socialiste euh, peut-être c'est moins le cas aussi parce que am na plusieurs personnes di ay personnalités politiques au sein du parti socialiste Pastef également ils ont peut-être appris de ces erreurs-là des autres partis politiques pour am yeneen nit ñoo xam ne ñu ngi leen di ràññee ci plateau yi ci rajo yi ci télévision yi ci ci ci ci ci euh, lu ñuy génn ci yenn meeting ak yooyu. Mhm. mais il que tous les partis politiques ont un numéro un. boo xamee mhm. ni daanaka mooy ki dugal xaalisam ci parti bi AFP aujourd'hui après Moustapha Niasse. yaa kii mhm. Alioune Sarr lañ doon wax gis nañu beddi na boppam. mais après kan moo fa nekkaat. ñi ses nag dañ la naan bon siiw ñu tajuñu fenn pour reprendre certains termes ak yu ni mel et ça c'est inhérent pratiquement à beaucoup de partis politiques au pas seulement au Sénégal mais ci ci ci Afrique d'accord loolu beneen jafe-jafe la ci li nga xamante moom mooy les partis politiques yi di dund ci biir réew bu Sénégal